ay neexal xol wallaay wallaay xaaral man ah, xaar <laughs> ma dekku merci salaamaaleykum euh, Sénégal salaamaaleykum euh, àdduna fu waaye mën a nekk waxtu wii ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci tànn bi nga tànn programme télévision Futurs Médias rawatina waxtu wi bu àllarba jotee rek seen émission ngoonal ngoonal nag tey jii ngoonal bu spécial lay doon gannaaw euh, ña nga xam ne ñoom laa koy bokkal ñoom dañuy jékki-jékki ne may donc euh, sama frère yooyu le tey ji nag ma toog fi fas yéene ànd ak koo xamante ne Sénégal ci boppam ñoom ñoo ko bëgg ndax Sénégal li tax ñu bëgg ko dafa jël li nga xam ne moom moo di reportage su euh, li nga xam ne moom moo di match yi ci wàllu sport andi ko ci benn niveau moo xam ne daal da ko révolutionné ba kenn ku nekk di ci jot bu ma nee am njaay indi jóob rek àdduna dinañ xam ki may wax yi mu ciy boole rek jar naa déglu ndax day neexal xol day jël sport andi ko mu accessible à tout le monde mu nekk journaliste bu mag boo xam ne nag ñoo bokk kër gi te yàqul benn yoon liggéey bi kon mbégte laay am ngir toogandoog moom yaakaar naa ne dañ koy teg caméra bi rek mu nuyoo <laughs> tubarkalla tubarkalla Kebs maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziar di nuyu mbokk yi toog di seetaan télévision Futurs Médias am mbégte Euh, ngonal ak yow mhm. ndax euh, yow itam tubaarkàlla mhm. euh, cappaacoli nga ca ca la ngay def ndax bëri na tey jii ñu ne ci télé yi di cappi-cappi ak jaay titre <laughs> yaay seen royukaay yaay ki nga xam ne yaa influer positivement ci seen prise de décision ba ñu nekk li ñu nekk tey jii donc ñu am mbégte ànd ak yow fas yéene ci diiru waxtu mhm. waxtaanee ponk yi ñu dajale fii bokk na ci football bi mhm. waaye itam laal tuuti politique ak tolluwaay réew mi ah, dëgg la football nag bu ma koy wax dañoo nekk ci actualité ah, tey am nañu gan gu mat gan laataa ñuy dugal ah, gan gi dañuy waxtaanee rek loo xamante ne yaakaar naa ne démb la mhm. démb rek matchu Sénégal boo xamante ne àdduna yëpp seetaan nañ ko xaw tuuti rek ñu ñàkk ko li ñu naan xalam demoon na bay ñaaw far ku yaate ñëw sauvé mhm. waaye loolu nag doy na waar te comme du sama domaine dama lay bàyyi rek nga wax ñu sa appréciation ak fan la Sénégal war a jëm Mhm. ndax fi mu nekk nii euh, doy na waar. ah bu nu bu nu bu xoolee Kebs si match démb bi euh, mun nañu wax nii déception bu mag lañ si jëlee. Mhm. parce que ñun man en tant que journaliste bi may dem stade dama jàppoon ni fête lay nekk pour Sénégal. Mhm. parce que équipe boo fekk dëkkam dóor ko 4-1. ah équipe boo xam ne boo ko bokk mu joué 6 matchs amul victoire. donc bu joué ak la première nation africaine biir Sénégal lu mu néew néew war na for ñett wala ñeent. mais dañoo am mbéjtal ndax dana ñëw si juróom-benneelu simili gars yi waa Eswatini taal caaxi waa Sénégal ba noppi jël seen i ay ëmb seen i bagage ak yëpp ñibbi seen i buntu kër toog baras waxuñu dëgg waaw toog ni lankandaare yow bëggoon mu yem ci 1 0 bi waaw ni comme que xas nañu daal ñoom sàgg nañu ba ñu lonk leen benn bi dinañu dal dinañu daj lu mburu dajul ci taal pour lonki ko <laughs> ñu mais loolu nag bokkul ci football nag ci la bokk ci la bokk ci la xam nga tam football bi stratégie la waaw am na ñoo xam dañuy ñëw pour am benn des ci am ñoo xam dañuy ñëw ñu ne du ma dugal yow doo dugal ñoom bi ñu ñëwoon loolu mooy ni au départ c'était ça jouer le match nul le plus longtemps possible pour éviter carton bi ci benn contre bu ñu teg ñoom ñu jël bi ñun contre le cours du jeu ñu ne léegi comme que ñun jiitu nañ leen léegi nañ sànni karawaas gi mooy ñu tëj bunt bi Aliou Cissé ak mii am na nañu des difficultés pendant presque quatre-vingt-dix minutes pour dindi bi boobu te loolu suñu waxantee dëgg jaaduwul jaaduwul ci équipe bu toll ni Sénégal bu toll ni Sénégal ak professionnels yi ci nekk nga am joueurs yi nga am mhm. nga am euh, vécu bi nga am nga am tour bi nga am mhm. Eswatini donte football la science la boo xam ne du science bu exact mhm. mais ñëpp xam nañu ni tey jii bu ñu nee Balla Gaye dafa war a bëreeg yaawu jaal bu yaawu jaal daanee Balla Gaye loolu àdduna bu tukki la parce que mënut a nekk loolu moo waroon xew diggante Sénégal ak Eswatini malheureusement espagnol yi ñu indil ay jafe-jafe daj loo ñu loo xam ne Sénégal gëj na daj li mu daj dem pour égaliser. waaw bu fekkee Eswatini comme li nga wax moom moo andil jafe-jafe Sénégal ak fi Sénégal jëm hmm. xel moom fi mu toll nii xanaa foog ay changement ak ñu euh, delluwaat ci mbir yi Aliou sa gën a xoolaat li nga xam ne moom lay Euh, def ci yëf yi pour mu gën a jëm ci kanam parce que nag wax yi bëri boo waxee ñun dañuy critiquer waaye bu ñuy critiquer tamit defe naa ne moom objectif bi mu am moom la Sénégal yëpp am il faut tamit euh, mu jéem a xool booy doxal dara bu doxulee da ngay a xool noo koy soppee wala waaw waaw jot na jot na parce que Aliou yóbbu nañu ñaari coupe d'Afrique wala ñett mhm. bi ci mujj dañoo dem ba final mhm. yóbbu nañu coupe du monde dañ ci jëlee ay déception mhm. te Aliou Cissé la presse sénégalaise ko yóbbu poste équipe nationale ñun ni il faut la préférence nationale bi fi jëlee bi fi jëlee Giresse. Mhm. dugg génn def bi ba jox ko équipe nationale bi. Mhm. mu ñëw am ay conviction maanaam am lu mu gëm. Mhm. mais ci li mu gëm comme que li ñu ko dénk alalu mbooloo la. ku ci nekk danga ci am droit wax sa xam-xam ak sa xalaat ci loolu. dëgg la gis na ne ni muy defee dëppoowut ak ni ko sénégalais yi bëgg. ni muy defee jurut li sénégalais yi di xaar ci moom. donc ku ci ne da war a wax sa xalaat moom aussi. mu yaa ginnaaw. nangoo déglu li ñëpp di wax mm. parce que bu fukk yëpp di ŋàññ mm-hmm. ŋàññ yooyu yëpp am na ci lenn loo xam ne boo ko jëlee mu doon njëriñ ci moom jur mbégte ci waa réew mi dëgg la kon foofu muy déglu mm-hmm. donte dafa saaja système démb mm-hmm. ak ak bu ñu joué contre Congo aljuma indi trois cinq 2 3 5 deux xëy na système la boo xam ne da am 3 défenseurs am 5 milieu de terrain am ñaari attaquant mais système boo gis dafa laaj animation même bu defa changé système bu bees dafa war a def les vrais Mm-hmm. qu'il faut la place pour animer ce système la pour am le résultat escompté mm-hmm. mais ne pas jël ay conviction pare gëm ko nii taxaw ci nii lii daal bu dul lii du doon dara mm-hmm. loolu amul fen loolu moom amul njëriñ joué na système bu nekk toujours le même problème mooy ñëw mooy le problème de l'animation du système bu muy teg te Aliou Cissé ñàkkul jour boo xam ne mën na animer système ñàkkul nit ñi di wax ñëpp waxuma sax les profanes waxuma man wala Ibrahima Ndiaye bi ne ci bi wala Doudou Ndiaye déedéet mais am na ay techniciens yoo xam ni ba ñuy am diplôme entraîneur Aliou Cissé mu ngi football ñooñu lu ñu wax ci football bi. soo ko xoolee ba xoolaat ko téere la. Mhm. mais aussi moom kese nekkul responsable bi. Mhm. parce que dañ koo fal jox ko les coups de France pour mu liggéey. Mhm. mais ci réew moo gis bu ñu la falee entraîneur dañu lay imposer ay adjoints yoo xam ni. fédération bi moo leen di tànn via sa direction technique nationale. Aliou Cissé boo xoolee ñi mu toogal si banc bi ay tubaab lañu. Lamine Diatta. bi toog si banque Sénégal. Mhm. ancien joueur équipe nationale. Mhm. Mhm. du entraîneur. amul diplôme entraîneur. Ah. Lamine Diatta agent de joueur la. te ba muy nekk joueur qu'on se le dise c' était un joueur limité. limité. il était pas extraordinaire. défenseur la bu fuga tëña di daal ji ak yooyu. parce que boo foofu la jamono tolloon. léegi weesu nañu foofu. dafa jóge nañu ci 33 10 léegi ñu ngi ci iPhone 11. waaw foofu la ñu ne. yëf yi day évoluer. nanu seet nuy def ba indi si staff technique bu Sénégal bi. ay entraîneurs sénégalais. yu am diplôme am vécu en tant que joueur am vécu en tan que entraîneur de club ak en tant que entraîneur de l'équipe nationale mhm. ñu tekk ci wetam ñu mag ko mhm. parce que nag néeg bu ki li ci jiitu moo la ko woon ñu koy taale lu am solo nga wax euh, noonu te ñu bañ a jàpp rek ne euh, Sénégal y'a 16 million de d'entraîneurs mhm. ndax kenn ku ne da ngay joxe sa xalaat te li ñuy wax xamuñu ci dara mhm. foog naa ne ñëpp bu ñuy waxandoo nga jël déglu loo xam ne nag euh, yëfi mbooloo la nag mu déglu ko te yaakaar naa ne li nga wax lu ama am solo la ñu jàll ci gan gi waaye laataa ñu jàll ci gan dafa am lu ma la bëgg a laaj mhm. malal yow nan nga la inspirer ba nga fexe ba actuellement reporter moom yaa fi teg tànk bu ñuy ah, def rek ah tubarkalla ah yi may ma dafa am loo ci andi gaa yi dafa am loo ci andi lu particulier dama ne am njaay indi job bi mais da ngay da fexe ba inciter nit ñi ñuy mën a déglu ki nga xam ne du buggul football wala du kii football sax mhm. bu la dégloo ni ngay waxee inspiration bi nga ci am ni ngay imager euh, reportage ba nga xam ne day day day neex a déglu daal mhm. loolu lan nan la la dikkee da nga xam ni dañu war a effectivement adapter euh, sport bi pour mu accessible à ñëpp suñuy réalité ñun wala waaw mais loolu xam nga wareef la. Mhm. boo xoolee tey ji bu ñu leen émission bi en français. Mhm. ñu teg ci beneen télé émission bu mel ni en wolof. Mhm. gars yi wolof bi la ñuy déglu. ba pare football bi dafa am langage boo xam ne c'est technique en français. sénégalais diis yoo gis. cinq yi dégguñu tubaab. da jël affaire bi. nga tekki ko ci wolof. ba mu digeste. xam nga euh, bu ñu xoolee ci misaal Serigne Touba. yal na yàlla yokk leeram. xasaayit yi ci alxuraan la ko jële day jàng alxuraan déglu alxuraan bi mhm. tekki alxuraan bi bindaat ko pour tagg yonante bi mm. bee mu woyof ci ñi nga xam ne seen aliwo sorewul mhm. man dama jël football bi tekki ko ci langage technique ba mu nekkoon ci académie mhm. def ko langage boo xam ne kii jaay gerte tax ci mel dafay dégg dañuy wax mu nekk wolof mu am kaf am image parce que dañuy wax RFM ça s'écoute et ça se dañ koy imagé kay. waaw xam nga boo nekkee Dakar ñu ni jël nañu bal bi ñu tulli ko ba Louga. Mhm. Louga c'est à 200 kilomètres de Saint-Louis mhm. Mhm. xam ne kon sori na. donc kii déglu dafay dafay dafay dafay dafay. xam non tu as l'impression que yaa ngi jàkkaarloog terrain. voilà da ngay am impression boobu. te ñun dañuy dañuy duñu bàyyi dara dañuy wax les couleurs des joueurs. les numéros wax la taille du du du gars wax l'endroit fu lépp la ñuy wax. ba pare nag dugal ci ay ay cappiteg ay ñemet yoo xam ne yooyu suñu yëf la waaw yu ay ay ay ñambaxtaan yu sew yooyu suñu yëf la uh-huh. parce que tam football bi mënoo rek jël di wax bal baa ngi ci kii mi ngi ci kii mi ngi ci kii pendant quatre-vingt-dix minutes dafay ennuyant mm-hmm. il faut éduquer égayer et mm-hmm. sensibiliser macha allah moo waral nag eh, bu match amee fu mu mën a doon ngay gis sax ku taal wàññi. waaw teleem daal di teg bi di déglu kon mm. yàlla na sa jàmm yàgg. Ah, ñu daal di eh, jàll nag ci gan gi. Mm. Ah, gan gi ñu am tey nag koo xamante ne la nii yaakaar naa ne actualité tax na ñu andi ko fi. Mm-hmm. Ah, bu ñu waxee nag fi ñu toll nii élection locale ci mim réew gëj naa am. Mm-hmm. ñu bëri ñi ngi naan eh, maire yi sax fi ñu toll nii amatuñu légitimité bi nga xam moom la ñu war am. Mm-hmm. dépassé nañ élection yi bu yàgg. booboog léegi seen date bi nga xam ne fa la ñu waroon arrêté jot na. ba tey nag ñu euh, am élection yi ba tey waxoon nañ ko fan yi waaye jëlaat nañ ko ne dañ ko reporté am waaw ba février 2022 2022 mhm. euh, donc loolu nag moom mooy prétexte bi ak yeneeni point yoo xam ne moom lañ fas yéene waxtaane tey loolu nag buñ koy def ak rôlu mairie euh, ñu fas yéene leen indil tey ji koo xamante ne jàmbaar la ci muy Abdoulaye Guèye Mansour muy conseiller municipal euh, bu euh, Derklé bokk ci li nga xam ne moom mooy chargé mission wu xalifa Sall donc dañu koy daal di woo mu ñëw ci plateau bi ñu fas yéene waxtaane ay ponk yu ama am solo jëm ci rôle mairie dëgg-dëgg ah conseil municipal lan mooy njëriñam ci mairie bi. Mhm. ak euh, yeneen entre autres point yoo xam ne euh, dinañu ko mën a euh, waxtaanee tey jii ci plateau spécial ngoonal bi ma xam ne maa ngi ci ànd ak Malol Junior Diagne mu ngi noonu nag mu ngi noonu di si ñu dalal kook jàmm ak salaam kontaan ci ñëwam. ah fas yéene def émission bu neex bu toj. <laughs> maaleykum salaam sëñ Abdoulaye nuyu nañ la. Euh, Abdoulaye Gueye Mansour muy conseiller municipal u Jëppal euh, Derklé ah ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ak jàmm ci plateau bi di la bàyyi nga nuyoog askan bi nga xam ne euh, ñooy seetaan laataa ñuy sóobu ci waxtaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bi ma sante yàlla julli ci sang bu tedd bi seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sama wasila Seydi Aj Malik Si radiyallahu taala anhu mm, yàlla na yàlla ko ay leeram te tas ci barkeem ak lépp lu mu njaboote allahumma amin di gërëm ak mboolem kilifa diine ci réewum Sénégal yëpp ak mhm. église bi mhm. yal na yàlla dëgër leen kàttanal leen mhm. ak mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi ci ëttu politique beeg média beeg ñëpp ak boroom kër gi tamit leen ñaanal yal na yàlla gën leen defal ndam amiin amiin amiin di parafitoo rek di jaale waale kii suñu baay ba Golbert Diagne ndaxte sama papa ndar la dëkk dëkk ri de Paris xamante ak baayam incha allah euh, am naa occasion bi toog ak moom yal na ko yàlla daal da def ci àjjanay firdawsi allahumma amin alaxira gënal ko addunaam amin amin yal na ko yàlla teeru àjjanay firdawsi bu baax di gërëm kepp si tamit ñu xam la bu baax amin amin euh, xëy na xam naa ne dëkkoon nga jëppal soriyaantoo ñu waaw dëgg la hôpital daan nga fa seet si malade mu dend ak sama rakk mu ne ci benn cabine dëgg la dëgg la loolu lu dëgg la ba na

Euh, Guèye Mansour conseiller municipal nga ah ci mhm. mairie euh, bu jëppal euh, Derklé bu suñu xarit Cheikh Guèye mhm. mu mel ni nag mm, conseiller municipal nga fa mhm. ñu buggoon nga wax ñu rek conseiller municipal dëgg-dëgg lan mooy rôle waaw xam nga conseil municipal seen émission bi rek tax na maa ngi ciy waxtaan ak benn kilifa sànq bi ñuy ñëw ma ne ko occasion la bu fekkente ne laaj nañ ma ci conseil municipal danaa ci wax tuuti loo xamante ni Sénégal tey buñ ko déggee rek dana ëmb lépp xam nga ci seen biir confrères yi dafa am ñoo xamante ne dañuy wax mais des fois sénégalais yi duñ leen bàyyi xel parce que am na ci seen biir journalistes yu xarañ wala ay reporters yu xarañ comme li nga doon wax sànq ci sang bi mhm. ci wàllu reporter tubarfakal da nga koy nangu xam nga tubarfakal <laughs> naa ci ñëw sax après ci biir ah, gis nga yàlla dafa def conseil municipal euh, taxawaay bi mu laaj Sénégal ak bi mu war a am Mhm. conseil municipal yi jëfewuñu ko. dëgg la. ma toog fii rek bëgg intérêt conseil municipal yi bëggul mhm. leen neex doon ko tax may wax loo xamante ne amul. Mhm. gis nga li ñuy jooy ci assemblée bi. seen confrère Mansour bi nekk euh, Sen TV. di ko wax chaque jour te nit ñi duñ koy bàyyi xel. may déglu ku mel na Charles. di la man dama ko dama leen di seetaan. te duñu ko bàyyi xel. may déglu Moustapha Diop bu Walfadjri di ko wax te nit ñi duñ ko bàyyi xel. gis nga lii ni ñi di jooy ci assemblée. Mhm. député yi nga xam ne lu lu lu lu majorité bi wax rek ñu jël ko voté ko. mécanique mécanique boobu. Mhm. xoolal moo am presque ci quatre-vingt-dix-neuf conseil municipal mairie yëpp. Mhm. xam lu ko waral. ku ëmb sa sànq ëmb sa kersa. boo war a ngénte maire bi ngénteel la. foo soxlaa cinquante mille dem mu jox la ko. foo soxlaa deux cent mille dem mu jox la ko. booy voyage mu jël oto mairie bi abal la ko sool la ko essence. mais moom maire fu mu jëlee xaalis boobu. xaalisu askan bi la. moo am ci mairie yi mais est-ce moo tax a jóg xaalis askan loolu taxu koo jóg xam nga bii leeral ma lay defal nii sénégalais yu bari déggu man la la ñuy xeex ci assemblée même conseil yi mhm. war nañoo fexe ba li ñu bëgg pour bañ mu mu amee noonu assemblée pour nga xamante ni dem ba nga xamante ni député lu ñu wax rek nekk majorité bi voté ko mhm. ñu fexe ba conseil municipal yi xam nga yi di ñëw niñ koy voté ak yu yële dafay uute. day uute mhm. xam nga yi suffrage direct la raw gàddu la raw gàddu la pour mu leer ci bopp pour mu leer ci bopp nit ñi war nañ indi parce que dañuy taxaw foofu uh-huh. dañ naan dañ naan fal waaw ay liste waaw kay bu ñu falee conseil municipaux yi ba ñu dem ca mairie ba waaw ñu ni ko bëgg nekk maire bu ëppee doole dafay ger ñeen ñi ñu votel ko mu doon maire merci léegi dañu ko soppi waaw léegi raw gàddu la waaw njëkk jigi ay maire waaw kay ah. waaw gis nga ah. léegi nag loolu loolu bu ñu ko tëralee ba pare nañu indi waat beneen tëral boo xamante ni parce que bu fekkente ni wu wuñu tamit ci conseil municipal yi. Mhm. kon tamit conseil yi bu ñu ñëwee. la fa nekkoon ba tey moo fi nekk parce que maire bi askan bi mën nañu koo fal ak yaakaar ba ñu am ci moom. Mhm. mécanisme boobu nga xamante ni moom moo nekk ci assemblée mu nekk ci maire yi te tax ma wax la ko. Mhm. suñu changé wul tamit euh, euh, loi yi. dana dem ba mairie boobu tamit dana fexe ba gis ñooñu ba lu mu bëgg. ñu defal ñooñu dañuy taxaw defal ko ko. gis nga fi fi ma toog di ak yow nii boo gisee mairie Wakaam. man dama leen a naw. boo gisee parce que ñun xamante nañ suñu biir. parce que conseil ya fa nekk dañuy bañ. man mii dama bokk ci sama ko ma du ma sori sax tey trop ci affaire parce que xam xam naa ni li ngeen ma invité du loolu. Mm. man xam nga sama conseil municipal nu ñu may woowee. Mm. rebelle. parce que. waaw wane na ko de ndax damay bañ commencé. Mm-hmm. rebelle lañ may woowee. dañ koy bind sax ci internet bi. même bu dara xewee buñ ne nañ ba naan yii bu leen ko woo lay Gueye rebelle la mais damay sant yàlla. Mm-hmm. duma ciy bég mhm. parce que man autorité boo nekk xam na ni man kenn mënu maa ger mhm. kenn mënu maa jënd mhm. ku ñu euh, euh, mon frère ku ñu taxaw sa kër ay autorité taxaw déglu bu baax li ma lay wax sénateur baag may déglu ci télé laay wax gaare oto 4x4 indi caabi teg wan na kër ga fa mu ne ca Sacré-Cœur ni la këyit yaa ngi nii ñëw fa deux heures mois cinq ñu war a julli ñu ne ma pour nga bàyyi Khalifa Sall pour nga ñëw jàppale ma man leen su ma ko naree def yàlla naa murtat ci diine. Mm-hmm. billaahi wallaahi taala da nga am conviction am loo gëm. Mm-hmm. Ablaye Wade président sax boo ko laajoon wala nga woo Ablaye Faye léegi mun la kii noonu la bindoo. Idrissa Diallo bi gaañu. Mm-hmm. boo gisee yàlla na ko yàlla yërëm def ko ci àjjanay Firdawsi soo gisee une semaine la ma woo gaañu nii la mel ak man. nee na ma Ablaye soo gisee ma bëgg la sa conviction moo tax. Ousmane Sonko mii une heure de temps lay wax ak man téléphone. mun ma Ablaye soo gisee ma bëgg la sa conviction moo tax. Sonko moom Sonko. kooku dinaa ah. ci léegi. Ah, Sonko moom dinaa ñëwaat ci loolu tuuti. non di dugal dem demal léegi dem ci léegi de. non parce que parce que li wax ci conseil municipal ba léegi waxuma. malal boo demee ci yeneen dëkk yi. bu ñu nee conseil municipal. am na lu am solo loo xam ne dañ koy gérer ci mairie bi. Mhm. waaye comme ni mu ko waxee mécanique da ngay dem. Euh, gis kenn koo xam ne peut-être élection yi conseil municipal yi nga xam ne xam naa leen man mhm. yenn femmes yi sama xarit yi nga xam ne xam naa leen mhm. amuñ amul benn liggéey boo xam ne dañ koy def mhm. liggéeyuñ fa dara turu conseil municipal da nga naan conseil municipal amul njëriñ loolu tax ñu commencé ci loolu ne lan mooy dëggi dëggi rolu conseil municipal mu xoolal ma do ma képp sax ma dool la ci benn affaire gis nga man bis moo ma nekkoon maire commune Dieuppeul Derklé man séminaire yi nga xamante ne dañ koy def di ko dem sali dootu am xam nga tax mm. bu ville de Dakar sax boo demee jàngat séminaire bi dana am sax ci xaw a nangu mais presque maire yu ci bari dama la quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi xool nga dem conseil ministre euh, fële nga dem euh, Saly Porté Saly Portugal ñetti fan nga war fa dépasser benn cinquante million ngeen toog lekk naan toog ñu def ay photo def ay nangam te yooyu ñuy def yëpp di ko fa wax bu ñu buñ dellusiwaatee ci maire bi dara du ci am waaw lu tax ngeen dem ba Saly te ngeen am salle de salle de délibération fii ci Ndakaaru merci beaucoup ah, bëgg ci daam ay maccaat ca biir foofa bari ah? am na ci ñoo xamante ni sax man ci télé laay wax man ragalu kenn feesu sa mm-hmm. am na ci ñoo xamante ñooy dox sax ci digg dañuy nekk ay conseil ñooy dox sax ci diggante hôtel borom hôtel ba courtier la ñu ci doon courtier lañ ci doon am commission mi ngoog di ko toppatoo ak mairie bi mais xanaa kon yéen seen mairie yi amul euh, gestion financière bu transparente parce que boo waxee li nga wax léegi nii wax na gaañi dañuy am fukki junni wala ñaar fukki junni dem ca maire mu jox leen ko mhm. te muy génnee ci xaalis askan wi mhm. xanaa mais dama lay wax benn mbir fi ñu toll xam nga dafa am loo xamante ni euh, tey buñ man dama bokk ci ñi nga xamante ni tey Macky Sall le président de la République du Sénégal mhm. bu fekkonte ni man bokk naa man ci ñi nga xamante ni cons xam nga fi ñu toll mandat yi ñu yokk nii man daf ma metti wax naa ko ci ay ay boo demee ci ah, internet bi man daf ma métti daf ma naqari. Mhm. parce que jaaduwul du yoon. Mhm. seen mandat kay jeex na. parce que palin nga ba taxaw ñu fal leen weesu. wallaahi as même bëri bëri ki démb sax def yónnee ma am na yenn conseil yoo xamante ne xam lan mooy waral sax du ma bari parce que bu ma demee yu ci ëpp abstention laay voté wala ma voté contre parce que lu tax. da ngay gis Masoud te la tax ñu di ko def mais yow ak maire ba yéen a bokk fa ngeen bokk ñoo bokk fu ñu bokk waaye xam nga ci xalifa ngeen bokk ñoo bokk nekk ci xalifa waaw LD la xam nga ma LD la man may socialiste waaye ñu bokk nekk tamit ci xalifa waaye xam nga dëgg nag boo koy def askan wee tax nga di ko def mhm. askan wi la maire ba du pour Cheikh Gueye du pour Ablaye Gueye ndax yéen seen conseil municipal bi mu ngi liggéeyal waa jëppal Derklé xam nga conseil municipal bi tey euh, euh, man man mën naa ni euh, boo demee fi ñu toll actuellement nii hmm. xam nga da nga dem gis ay travaux yoo xamante ne ma nga fay am hmm. travaux yi xeet travaux lan la donc lu ma la ko bëgg waxee demal ci mm-hmm. ci jàngat bokk mm-hmm. Mm-hmm. nga ñaari at yi ci mag yokk ba li mu yokkaat 2022 mairie bu ci deful woon ca jamono ko waree def <laughs> yaa ngi profité pour def loo xamante ni pour boo ko defee pour bëgg élection yi di ñëwaat pour ñu la mairie jëppal ci la bokk daman la déggoo man déggoo ah, man la naa gis naa école jëppal ñu ñu kii ñu di ko defar déggoo kebse daman la man su may la bàyyiwuma benn mairie xam nga bàtt li mu jaar sama frère sama xarit day wax lu am solo sama rak xam lu muy wax dafa ne suñu programme ñun mairie yi ànd ak xalifa yëpp ba mu ñu ko bàyyi ko li ñuy def di pavé di def leneen ak lépp yëpp du seen programme programme mu xalifa sàll la foog ñu accepté ko mm-hmm. léegi nag boo demee ci biir mairie yi nga seetaan nga seetaan sànq bi lay taggal waa Wakaam mm-hmm. programme xalifa sàll boobu dañ ko fa ñenn ñi dañ ko faa waroon jéggi dem créer lu bees mm-hmm. xam nga sànq maa lay wax cinquante millions yi ngay def presque chaque kii di dem di def ay séminaire ci cinq ans yi ah, mais tey mënu woon ah. tey jënd ñaari kër déglu ma ñaari kër nga jënd ko kër gu ne cinquante millions keps am na ci commune bi mhm. boo ko jëndee bii nga téye tudde ko maison des femmes pour jigéen ñi mhm. ñii di ñaw ñii di rabb ñii di def la ñu ko fay ñii cuisine waaw yow en tant que conseiller municipal xanaa idée yi amul leen fu ngeen ko waxee wala nu ngeen ko defee nu ngeen di fexee ba maire bi jot si wala ba ñu voté ko bañ jéem euh, li nga xam ne moom ngeen di xalaat waaw ñu réaliser ko man mii di wax ak xam nga dafa am loo xamante ni foog ñu koy nangul doomu aadama mhm. man mii di wax yow Cheikh Gueye mii avant muy falu di nekk maire commencé ko ci Salif Mbaye déglu rek de dafa ñu ci lu gàtt rek Salif Mbaye dañoo gisee semaine bi passé ci couvre-feu bi ba policiers yi sax yem ci ñun muy doxantu ñu taxaw ñun ñeen du ngeen tëddi ñu ne ñu yi ñoo ngi jéggalu ah. Salif mi ngi may dégg direct la conseil municipal amu leen génn ci couvre-feu bi déedéet xam nga man maa génn Salif génn heure bi jot nekk taal ñuy wax far ñu daje ah, ñu taxaw suma buntu ñuy waxtaan Salim bi ñu taxawee gars yi bàccuñu leen. gars yi bàccuñu leen. non sax dañ dañ ñoo wax rek ni ñu wax yéen yéen a moom mbedd mi. tabarkal man ak Salif ñu leen déedéet ñu moomuñu ko ngeen jéggal ñu ñu ngi tëddi te noonu lañ ko defee. tabarkal Salif ma dugg sama kër. mais Salif dañoo gis a taxaw. Salif daawul jóg sama kër mais bi mu toogee ci mairie pour wala nguur dafa garaaw Salif waroon na mën a toog beneen mandat. Mhm. parce que liggéeykat la mais Salif dafa toog ñaari at dugg ci ñetti atam changé. Mhm. mel neneen ci politique am dara baaxu ci. lu ko changé xoolal xam nga lan la gis nga système bi maire moo dàq kii moo dàq ministre. nekk maire nekk maire moo daq député. ci naka nekk maire moo daq président. moo ëpp xaalis dafa am fu ma lay dugal sànq. Mm-hmm, mm-hmm. gis nga Salif bi ma ko waxee ni ko Salif man ko erreur yi ak erreur yi nga def. yow ba ma retiré man mi la jàpp doon ba nga falu ba ma retiré deltu ginnaaw rek. Mm-hmm. da nga waroon xalaat nga ñëwaat ñu toog. mais naa ko côté bu nekk nangu woo ko. li la daaneel ba nga jóge fi yaa ko teg sa bopp anamu tey xam lu ma wax. ni vraiment Ablaye dama koy nangu li nga wax dëgg la maa juum. Hmm. kooku nangu na lu mu def sëñ Bay Si man Mansuur moo ne sang dëgg mooy nekk ci yoon dëgg dab ko mu xam ne dëgg dab na ko mu taxaw nangu dëgg ga hmm. neen loolu ku yorul ju koy sang mënuloo ko hmm. moo tax bi ma waxee loolu dama cee kontaan Cheikh Gueye 24 sur quatre sama kër la doon nekk avant les élections même ay ay noto élève am su koy signé sama biir néeg la koy signé Cheikh Gueye même man la bi ñu demee ba gagné élection yi ba ñu takkal leen charpe délégation bi ñoom ñëpp ak conseillers adjoints yi ba ci Ousseynou si la greffier ñoom ñëpp sama kër la ñu njëkk a jubal si dugg foofu ni tey lu ñu am tey ci ndam gannaaw yàlla grace à Ablaye Gueye mi te conseil la mais Cheikh Gueye moom mhm. loolu bi mu amee tey ba mu falu ba dem tamit ba nekk maire nam daan ñëwee sama kër ñu koy gisee di toog di waxtaan di naan at di échanger di joxe ay idée ba ni ñu def ba gagné mais loolu amatul te man du ma kuy daw ci gannaaw politique seen. mais est-ce que est-ce que am na jot demal ma la. est-ce que seen conseil ñoo dend ay kër. non non est-ce que est-ce que Guèye seen municipal yi nga ngi daje. est échange la dina am foofu est espace d'échange la. ba tey waxul rôle lu lu lu développé mm. gox bi ñu leen dénk mm-hmm. espace la bu ngeen dajalee rek pour voter loi yi maire bi bëgg. parce que da leen fukki junni ki ñaar fukki junni mais xam nga li ma la wax sànq man bi ma lay wax dama ko généraliser parce que dama xam ni tax ma généraliser projet yi projet hmm. maire bi la wala projet conseil municipal moom laa la wax gis nga projet yi ci ëpp gis nga maire bi dafa am ku koo xam dañ koy wax tey naan ko Ludovic ngi nekk ci ki wax naan réew mi kenn ko pàccoo dañ koy péncoo nu mu tuddati Momar Samb Momar Samb waaw ci partem la bokk waaw ñoo àndandoo ci coalition taxawu Dakar mhm. ak kuñ naan tamit un certain Assane ñooñu am na ay idées yoo xam man am na idées yoo xam sax man ci conseil municipal ci ñoom laa koy jëlee sax mhm. mais ñooñu tey bu ñu taxawee ci maanaam ñoo man ñoo ma gën a xarañ ñoo gën a sax yeneen conseil yi mais gis nga ñooñu seen idée kenn ki rek ñoom Ludovic ñooñu bu ko Cheikh Gueye doon jël di ko jëfandikoo suñu commune day mel na panaal mais ñooñu bu ñu commencé wax sax ci conseil municipal ikkati ay kàddu ni Cheikh lii du yoon nga gis majorité bi taxaw comme ni am mhm. leen gëdd des fois dañuy rus ba la ñuy ñibbi wala beneen conseil ñëw sax du ñu nangoo ko defee ñun ñooñu ñett lañ fay doon moom am na tur bu ñu ko tuddee man ñu tuddee ma rebelle tuddee ma kenn mais loolu nga bañ a dem ci conseil bi moo gën askan wi la ñu war a liggéeyal askan wi la war a defal moo tax la man yëpp Macky Sall tooñ nañu ci télé wax deux ans yi mu ci yokk maire bu nekk maire bu nekk yaa ngi accéléré ci deux ans yi mhm. bëgg cee def loo xamante ne day mel na programme te waroon nga waroon ko def ci quatre ans yooyu mais seen maire ba fu ngeen toll ci voirie yi ak éclairage public non loolu déggoo man la loolu ngi ci accéléré ak comme ndoxu taw na muy dawee Mm-hmm. olof olof laa leer xam nga yow olof nga olof yu leer nan ni ngay dul ci télé bi mm-hmm. dama la mi ci accéléré comme ndoxu taw ni muy dawee ci yoonam mm-hmm. parce que lu tax parce que ci la jëm moo tax daa bëgg nekkaat maire bëgg na ko da ko bëgg ah. nekkaat fii laa koy wax sax wax nga ñu maire dafa neex moo dàq député moo dàq ministre loolu xam lu mu doon kon naa naan CO e ji de baax na woyof na te sell na warkal waxaat si woo kay <laughs> bëgg muy leer bu ma demee sax fi ñu jënd da ah, mooy de moo fi ne de mm-hmm. waaw waaw ko defee gàmmu gi sax naa wax gars yi ñu ciy commandé lu bari incha allah <laughs> est-ce que xam nga loolu lu tax ma ma la koy wax ah. mm-hmm. xam nga nit ñi ba tey dañu xamagul mairie gis nga mairie li muy dugal ci xaalis mm-hmm. gis nga même bu dul woon compétence transfert yi sax ñu jël indil ñu ko même bu dul woon loolu nañ ko teg fële waaw xoola tey boo dee def publicité ñuy def ay kim machine dama déglu de li ma lay wax. waaw mooy tableau yi. tableau yi tableau yi ci benn ci tableau yi. panneau yi. Ah, xam nga dañuy jël benn bâche dem ci damay loué ay bâche ak waaw da ñëw loué benn bâche. ñëw ci marché bi gisul ñu teg ko foofu. di def ay jimboo di jaay ay mm-hmm. siwo. def nga bâche boobu ñaata lay fay. Mm-hmm. Mm. lu gën a tuuti ci mairie bi waaw journée bi mu fay nekk rek laa wax de. waaw cinq mille bu ñu ko ko defee léegi mu gën a yomb. <coughs> mooy trente cinq mille juróom-ñaari junni bu fukki junni lañ lay defal nga fay te ñooñu dañ koy fay te li ñuy xool ci marché yi loo ba dama la jox ci boobu rek. yéen yéen euh, biñ am fii ci wetu Walfadjri. waaw luuma bi fu mu bokk ci yéen wala ci xaar yàlla la bokk léegi kee sax léegi bàyyi na ko léegi maire yi sax ñoo koy gérer encore. luuma bii moom fu mu bokk ci ñun la bokk. yéen koy encaissé ñoo koy encaissé samedi gu ne. mais dama la luuma yooyu luuma yooyu. ak lu samedi sax amul kii yow luuma yi luuma yi sax du xaalis. gis nga taxi yi ci biir commune bi. Mhm. taxi yi génn ci commune yi. ah mhm. ak yi am yu sew yi ma lay wax ah mhm. oto yi li ñuy gaare conteneur yi ah gis nga seeka lépp gis nga mairie yi wallahi azim gestion mairie yëpp xaalis yi ni muy génne bu amul contrôle bi ci war ak ni mu jaaree ba ñu tegal la xaalis bi ci taabal ba ñu def développement ci commune yi ah, xam nga dafa am nag lu yàq dëkk bi hmm. muy lan xëy na man sax sama jàng troisième laa bàyyee <laughs> tane na dem nekk entrepreneur ah. nga fula ba de man foofu laa bàyyee xëy na dem nekk entrepreneur bâtiment mais dama lay xam lan moo yàq hmm. gis nga intellectuel yi sëñ Mansour Sy Djamil danaan quelqu'un peut être être un intellectuel mais qui ne pas intelligent mhm. sëñ Cheikh Ahmed Tidiane daal nit ñi dañuy jaawale diplôme ak xam-xam dañoo uute mhm. bokkut gis nga borom diplôme yi dañuy tromper nit ñi gis nga intellectuel yi ak gis ak justement li ñu bëgg indi naan euh, ku amul ay fanweeri nañ ko def fanweeri millions trente millions ou sinon doo nekk maire am na ñoo ah dañoo yokk seen caution mhm. mais mais am na tey dégg naa ci benn télé mi ngi wax naan nañ ko gën a yokk sax amul tax mm. mais boo ko yokkee tey am na ñoo xamante ne tey boo di woon deux cent millions ñu teg ko ci taabal ji. pour nekk maire su boobaa yow ah, mii. ministre moom laa la wax su boobaa yow mhm. ak sa xam-xam bi nga am. doo fay amoo deux cent millions xarañ. tey boo jëlee xalaat mhm. tey askan wi nga jox ko tey fan fan ngay nekkee maire. waaw doo mën sa nekk maire waaye nañu dindi somme yu bari yooyu xoolal dëkk yi dofuñu comme que changé nañu système bi dama la Macky bu ko mënoon def cinq millions trois millions nag ko def man mi bokk ak yow gox xam naa la yow xam nga ma. Mhm. yaa ngi jub nga sell nga mhm. am nga diine doonal musulman doonal un chrétien waaye na am looy jomb mhm. gis nga nit ki am lu muy jomb bu gisul sax day jomb mhm. waaye ki am lu muy bañ heure boo gisee mu def rek ah dafay fekk bu bu bu ma gisee keps yaa may dégg su boobaa su ma gisee keps du ma def mais su keps demee rek ma def mais ki am jomb jomb nag mu gis keps ak mu ñàkk gis keps bu ko defee du def mais man dama gis man dama gis keps ci baobab ga ma dëkk Barthélemy euh, bokk ci ñoom daa toj tëliya defar taal lamp ya defari terrain. boole koog yeneen. defar ay terrain basket ay terrain football defar ay pàkk pour gën a mën a mën a mën a mën a lifin mën a mën a fo dugal sax rek waaw mhm. foofu man damay wax ak yow xam nga dafa am lu ma xam nga mbir ki bokk ci biir moo mën a wax. Barthélemy Dias man sañ naa koo waatal ci gestion. Mhm. Idrissa Diallo ndem si Diallo si gaañu. sañ naa koo waatal. Mhm. ah yow sa maire bi nga nekkal na sañoo ko waatal. non xaaral ma ñëw mm. sama maire bi ma nekkal. Mm. dama lay wax dëgg tey boo ni ma woon waatal ko du ma ko waatal. lu tax xam nga lu tax du ma ko waatal. te ngeen nekk. waaw moom laa lay wax xam nga dëgg yàlla ko moom. waaw dëgg yàlla bokkul nee na booy wax dëgg te sa bakkan des ci sax na nga ko wax tama tax wallaay wallaay xaq jeex na mu gis nga gis nga gis nga gis nga li tax man la boo ma ni woon waatalal Cheikh man la du ma ko waatal mhm. parce que am na loo xamante ni mi ngi dox yaa ngi ciy teg sa bët kenn du ci essence ak yow limal naa la fii kenn ba tuddalu turam Ludovic wax la ni mu mel ak ni mu xarañ ci ay xalaatam mhm. tuddal naa la fi assan Thiam yaa may dégg wax la ni la ay conseil municipal lañu ñooñu tey amul dara lu ñu mës indi ci mairie bi ah te ay président commission lañu amul dara lu ñu mën sa indi ci maire ba indi ko teg ko ci taabal ji ba tey ki nga xam ne mooy suñu maire jël ko di ko jëfe ñu gis yi nga xamante ne xew même bu xam nga nit ki bu rek loolu mooy yàq dëgg mais Ablaye wax ne Cheikh Gueye dafay demee xalaatu boppam rek li li ka doy lay def du déglu gaañ yi non mi ngi demee xalaatam ak équipe ba nga xamante ne moom la àndal ñi nga xamante ne nag am na loo xamante ne dañ koy bañ di gis yi nga xamante ne jaaduwul xanaa xamoon am na noo xamante ne tey maire yi tey am na conseil yoo xam tey ñu mel na man fii ma toog di wax yow wax naa la ko léegi mm-hmm. tey boo ñu woon délégation espéciale tey ñun ñu may tànn biir. ah bon man man du xam man. yegg ngeen yegg ngeen foofu gis nga Khalifa Sall man bokk naa ci ñi nga xamante ne. lu ma ko jege jege Khalifa laa àndal xalifa laa gëm mais xalifa tey bis bu ma àndoon ak moom dem assemblée. xalifa hmm. am majorité lii jugu fi. man maay ñi député bi nga xamante ni kon su gaa yi taxawee neen ni xalifa majorité ma taxawee na le bu fekkente ne loolu arrangé wul Sénégal laa wax parce que député du peuple la ñu wax. dama koy teel a wax fii nag. Mm-hmm. bay boo ah. mm-hmm. a a yeesal pour dem assemblée. fi ñu la ñuy déglu ñoom ñooy xool. Mm-hmm. xam nañ ku nekk na nga xamante ne noonu la mel. xam nga gis nga ni ko gis man ak papaam la woon démb ak bërki démb. Barthélémy xam la moo tax mu garaaw valeur yi ci moom dafa romb sax bàyyam. Barthélémy day tëjoog man bureau pendant une heure de temps Hmm, yow nag ñi ngay tëjool mu ngi bëgg a bëri. xam nga lu tax. Hmm. xam nga lu tax ñoo bokk fu ñu ñoom Sonko ñoom Barthélémy. de de Sonko wax man foofu Sonko de tëju de. ah ah ma bloqué waaw kon déggoo wax. ah di wax. waaw hmm. Sonko mosuñu toog ñuy tête à waxtaan dama ne la li ñuy déggoo ci téléphone sama. mais yow Sonko waxtaan nga ak moom ci coowal Adji Sarr ji ndax moo defam deful parce que moom tam ba léegi tontuwul ci loolu. waaw xam xam nga kon kon yéen waaw doo may ma jeexal ci Barthélemy rek tuuti. waa waa ñëwal dama la bëgg a wax Barthélemy. waaw Idrissa Diallo yal na ko yàlla xara àjjana. waaw amiin dem na Barthélemy Dias dama la exemple la ci maire yi nekk Sénégal. Mhm. parce que li tax ma wax la ko day échange tey diisoo. Mhm. xam nga bu fekkoon te ni tey Cheikh Gueye ko nag. tooguma ci télé man dama koy xal wala di ko ngaañ waaye damay wax li nga xamante la te yàlla moom moom mhm. tey Cheikh muy def wala lu muy xalaat bu ma toogee fii danaa ne Cheikh Gueye du def lenn loo xamante ne tey

xam nga Sonko lan laa ko avant affaire Adji Sarr bi hmm. trois mois avant affaire Adji Sarr bi billahi ma waxtaan ak moom ci xalifa ba am lu ñu doon waxtaan xam nga hmm. mu wax ma nag baat boo xam ne keroog xaw naa sax jooy ci téléphone bi ma téye hmm. mun ma Ablaye Sénégal politiciens yi ñi ci gën a jub gën cee dëggu gën cee sérieux bu ñu doon ñaar la booy tànn ci ñaar ñooñu xalifa Sall mooy nekk numéro un lii moo ko wax ak man ci téléphone billahi wallahi taala ñu jóge ci foofu di waxtaan yu bari ci biir waxtaan bi. ndax waxtaanee ngeen aji saar may ma ñëw rek ci biir waxtaan bi. bul wëri koñ man man maa ne ko ñetti weer. waaw boobu de la boobu ak lii def na ñetti weer xam nga ma ko. waaw man ko état bi mi ngi pare sa kaw la ñu jëm si. ah yow yëgoon nga lool. pour préparer ci kii affaire complot yi ngeen di dégg nii. waaw mais dafa am ci affaire bi. ah bon ah dañoo comploté waa ji. Sonko complot bu si amul woon. mbir mi ni mu demee nii xoolal sang bi coow viol yàgg na am Sénégal. Mhm. problème ñiy dem ci salle de massage yàgg na. waaw dama ni la. état bu ci duggul woon mhm. kenn du ko dégg man maa wax Sonko laa te ni ma ko waxee ñeneen wax nañ ko ko Sonko dañu waroon gisee sax ci diggante bi mhm. wallahi azim mun ma Ablaye damay ñëw kër gi sax bu ko defee ñu toog waxtaan mhm. ma ne ko bàyyil xel li ma lay wax de état mi ngi préparé te sa kaw lañ jëm si xoolal dama bëgg tey kii sàll mi dem euh, Macky Sall nommé ministre Issa Sall Issa Sall waaw waaw ministre conseil waaw bu nekkoon pur bu nekkoon pur waaw nekk jigéen pencum ndaw ci internet bi man nga xool samay bagage la ma fa doon wax gis nga gis nga même même suma grand maa ngi koy nuyu de passage président Idriss Seck en plein campagne Idi day nekk ci biir campagne sax man su ma ko woowee day droité otom laajal ñoom sànjeeri wax ak man ba pare ni chauffeur bi avancé waatal recevoir na ma avant muy commencé campagne bi vingt cinq minutes Khalifa Sall nekk ci kaso bi yónni ma ci moom sànq lu ma la waxoon bokk naa lool loolu ngir ma présenté bokk naa ci ay chargé de mission am mm-hmm. Idriss dama waxtaan ci yu bari gis nga noonu may waxtaan ak Idi loolu laa waxee Sonko mais ah moom da ndaanaan la ñoom Idi ñoom lay tëjoo man dama dëgër bopp waaw Sonko ndax yow ak moom da ngeen di waxtaan ndax waxtaan nga ak moom laaj ko ndax moom moo def am deful laaj ma lu ma ko wax ci mbiru Adji Sarr bi waaw man sax nee naa ko xoolal bul ci wax bul ci ah, wax déet loolu fa mu wax ci laaj ma lu tax ma ne ko bul ci wax waaw sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si bu ah. suñu référence waaw ku universel la waaw nee na bu ñu la dee tuumaal ku nekk di la wax. waaw te nga xam ne yow ci dëgg nga toog. waaw nee na neel patt te noppi jamono mi ngi ñëw te du sori moo lay layal. kon ko ci dëgg la toog. wala maa la ko wax. siiful ndaw si. amul si seexunu baa seexunu si dama la lii daal xool dama lay wax am na loo xamante ni yàlla laa koy bàyyee parce que jullit laa <laughs> ah damay topp kaare déglu topp mu sës ngàpp kay na sës déglu ma <laughs> Sonko menacé wul de mort waaw Sonko violé wul ah yaa may dégg lu leer lu toll na midi laa la wax gis nga yi ñu koy waxal sax naan dafa sumeeku am na ñu koy wax sax internet bi sumeeku ba seet ñu koy maase ak yooyu yëpp kepp sa fii laa ñu koy waxee exclusivité la hmm. Sonko mësul summi calcium tëdd mel ni mu mel ba ñu koy tiim noonu di ko maase xam nga mbir mi fan la toll hmm. gisoo bisoo ñol information bi ñuy jël di ko dawalee sax ci biir sénégalais xam mooy lan hmm. léegi gisoo Sonko nitam yaa ngi dem ndànk-ndànk ñii ñi ngi bàyyi ñii ñi ngi dem fële dee leen xool affaire procès bi ni mu gën a yàggee gars yi di ko gën a bàyyi xam lan la dafa am ñu ñu jël fi ñu toll créé leen ñu dugg ci internet bi di dugg ci biir nit ñi nan la gisoo boo gisee sax léegi sax d'accord nañ Adji Sarr wax na léegi sax tuddatul menace tuddatul nangam ah inter a internet nag yëfu Sonko la ak ay ñitam waaw dama lay moom sax muy wax xale mi nanu nanu téye fas a bàyyi moom waa man eh, la xoolal waa Sonko yi ña nga fa am na ñeneen ñoo xamante waaye bu ngeen dee wax c'est que yu am na ñoo xam ne sax xam nu ñuy def dañuy présenté wu ci ñeneen te fekk nañ du ñu ñooña hmm. kon kay moom moo war a defar toogaay ak mbootaayam déggoo li ma la wax xoolal te sax loolu ngeen war a xam nag am na ci xam sax daan nañ def ay sont ci waa kër Sonko yi hmm. di wax man am na ñoo a téelee ñooñu bàyyi nañu sax wax ko bindatuñu ah, man maa lay jox information ah, xanaa xamoo am na ñoo xam ne xam sax temps yi lan la ñuy wax hmm. dañ naan sax Ablaye Gueye dafa am na ñu koy wax bañ wax ñoo ingénieur ba xanaa léegi Ablaye Gueye dafa nekk ci Sonko man leen nekkuma ci Sonko damaa nekk ci dëgg xam nga lan laa bañ man kuy complot doomu aadama mais ban ban njëriñ la état am pour di comploter Sonko xam nga lu tax ban njëriñ la waaw Sonko dafay indi lu bees nañ ko nangu Khalifa Sall ngi fi Karim Wade ngi ñoom Thierno Alassane Sall ñoom ngi fi mhm. ñoom Malick Gakou ñoom ñëpp a ngi fi ñoom Idrissa Diallo ñoom Cheikh Bamba Dièye ñoom ñëpp a ngi fi tubar fakàlla macha allah ak ñeneen ak ñeneen mhm. nekk ñu am taxawaay nekk ñu am ay qualité yaa may dégg mën a yor tey réew mi mhm. mais Sonko dafa indi système bu bees nañ ko ko nangul ci Khalifa laa nekk mais nañ ko ko nangul système bu bees bi biñ fi indi yenn wuri ji fi doon am ak li ñu doon def ak bi mu nekkee impôt man dem naa def samay investigation ci waa impôt yu ma xam hmm. ñoo xamante ni samay xarit lañu am na ci directeur impôt mi ngi may tuut mi ngi may dégg ci télé wax damay dox fii di tax man damay def marche suba teel gi hmm. ma ñëw ba euh, ba ba fii euh, église bu bu mag bi nekk fi Sacré Cœur waaw mu ñëw rek may daw nii mu téye ma sol blouson ni monsieur monsieur Ablaye Gueye ma ni ko wéy mun ma xaw ma lan directeur impôt xaw ma lan daal di présenté wu ni ma dama lay suivre ci internet bi di la déglu mhm. mun ma ku la naw laa ku la sopp laa fasante naa ak yow kóllëre mhm. daal di jël sama numéro wallahi azim mi may dégg ci télé laay wax mhm. en tout cas jikko yi muy wax ni moom la am de raar na ci politicien ci politicien kay am jikko yu nga xam ne am na ko moom politicien jël sa caméra ay valeur am ba pare am idéologie am lu mu gëm waaw ah, bu loolu wéyee nag ñu ñëw ci Khalifa Sall mi nga xamante ne yow fa nga bokk da ngay daw Sonko ah non génn ko génnu ma ci <laughs> de pareegoo ci déedéet boo pareegul aja parce que tontoogul la déedéet Sonko ma ci laaj ma ko enchaîné foofu waaw parce que am na lu mu doon wax nga ni dafa indi lu bees est-ce que pour tëj coow nekkul kon échec politiciens yi fi Sonko fekk mhm. dañoo échoué mhm. ci politique bañ doon bañ doon teg ak lañ noon développé ni système mhm. est-ce que nekkul dañoo échoué moo tax Sonko ñoo émergé jaar seen kaw jël pay xam nga sax lenn ñan la ci ñi ma la tuddal seen tur amoon nañ ko jëlal sax ku mel ne Idriss euh, kii euh, euh, waxuma Idriss Dia kii Mamadou Lamine Diallo. waaw tekki. tekki c'est que dafa kiiwul rek moom. Ndeye Fatou Touré ah, c'est que moom Ndeye Fatou Touré. waaw dama lay wax rek xoolal li Sonko di wax nii ci kaw nii. waaw jël dama nga ci ci ay affaire am ci gannaaw. Mhm. Mhm. bu ci sama jigéen ñoom ay dëmboo ak ñoom ñëpp jël leen. ñoom seen bu wadd mhm. bu kolobaan bii. ñooñu dañ koy wax ci kaw nga di ko dégg. mais ba su Sonko daa gën ci kaw rek. ñoom dañ ko doon wax sax mu suufee. Sonko ñëw génnee ko ci kaw. ba pare taxaw nag xam la moo ci gën a neex ñi nga xamante ni ñëpp jar na ak moom impôt ñoo taxaw wax sénégalais yi dégg kii ni man jox nañ ko 500 million ci terrain bu ñun kii mu bañ keneen wax keneen wax mais loolu du ay vertu Sénégal loolu moo fi manqué tey kaay wax la naka ngay mën a nekk conseil municipal est-ce que dafa war a am salaire. day daa am indemnité. indemnité waaw. indemnité la war a am indemnité de session. Ah, ah. ah. demal ma ci mairie yi ngeen def seen investigation. da ngeen di fayee salaire. demal la. am na conseil yu bari dañuy fayeeku weer wu dee saleer ah man maay wax ak yooyu si ban rubrique ngeen ko dugal. waaye ban du duggul ci benn. divers est-ce que duggul ci divers. wala caisse d'avance. waaw waaye affaire yi dafa xoolal xoolal mbir yi eh, dafa yéeme yéeme. Sénégal neex na Sénégal neex na nag. bàyyi ma dool la beneen. Ah. boobu sax oyof na. waaw ñëwal. yow xool nag am na conseil yoo xam déglu li may wax dafa leer dama bëgg su ma koy wax bëgguma ñu mel na yow yi ngay wax da am am jëppal dafa déglu ma damay bañ déglu li may wax ma di ko wax hmm. wala dama généraliser dama leen ah, noo xamee ne ci yeneen yi yow kay fi nga ne a xam la fa ne xamul tax ma xam ne ah. ñu leen di ñoom Cheikh Gueye hmm. ñan ñoo leen fal du ay conseil lañ ñoo leen ñoo man mii bu ñu doon génnee ciru conseil ya nga xamante ne ñoom ñoo leen démarché fekk leen seen numéro yi wax ak ñoom mhm. ba ñu voté su ma génnee suma mu ci woon suma cër kon ñett ñi tey dem au conseil du ñu fa dem mhm. may na li may wax am naa relation ak yeneen maire yëpp damay waxtaan ak ñoom mhm. conférence yi may def ci weeru koor ñoom maire yëpp kilifa yëpp dama leen di invité dañuy ñëw dañuy toog damay dégg sëñ Habib si toog sama sëriñ doom ibnu sëñ Mansour si borom daal ñoom sëñ Abdou Mbacké Layène Tivaouane Touba léegi wax nga ni am na ay am na ay conseil yu ak lan waaw moom laa la wax dama la wax système bi ni mu grave laa lay wax mhm. tey dama koy wax fii ci télé laa toog mhm. dafa am yoo xam dafa war a changer mhm. gis na maire yu bari laa wax Barthélémy Dias déggoo dama koo tagg gàcce ngaalaama moom nañ ma may moom rek laa téye tagg ko ci covid bi sax wane na boppam ma am fu ma ko teg respecté ko nag xoola te yii ma lay wax nii moom bokkul ci yooyu de am na ñoo xam ne xam nga xaalis naka lañ koy defee damay nekk ci maire nekk fa commune ma am samay nit yow nga nekk fële dama lay indil quatre personnes cinq ba indil la sax sama jabar muy fayeeku ci yow yow nga jëlee foofu nga jël ko comme employé mais ngoog yow nga jël ay employé fay indi fii indil ma fii ngeen di fayante dem eh, leen teg dikkalante moo neex ci maire yëpp waaye yéen ko ñeen ngeen de client yéen ay client la ñu yow Macky ni may dégg jaar na ci maire ah, ah, kon Macky yëpp xam na ko yëg laaj ma bi gën a salte nag ñu war koo dindi ah. waaw bi gën a salte ñu war koo dindi waaw waa léegi bu ñu ne dañuy jox chrétien yi seen xaalis pour pag yi jàppale leen waaw mhm. musulman yi ñu war leen jox korité ak tabaski waaw mhm. ñu war a dem xaalis bi ñu war a ko jëli fële perception ah. perception municipale mhm. municipale waaw waa lan moo waral mënuñoo dem quatre-vingts millions la ñu war a génnee pour indi ko signé ko lan moo tax waruñoo def rubrique boo xam ne day dem ñu jox ko quatre-vingts millions ñu dem jëli ko kepp si indi ko ah partagé ko moo gën simple de lan moo war a mënaan la yow man man man man maire waaw yow man la indi cinq carte d'identité kii indi cinq carte d'identité ah. kii indi trois carte d'identité ah. bii ñu def ci carte déglu ma de carte d'identité bu nekk yi ñu def ci vingt mille francs yi ñu def ci quarante mille francs non mairie seen mboot yaa ngi feeñ ñu dem di ko retiré buñ ko retiré xaalis boobu yow mi ñuy yónni nga dem retiré ko yow rek boo ñëwee déjà am na loo xamante ni sax yow ca dañ lay compal ak la ko cay compal waaw nga ñëw indi ko jox ko <laughs> non gis nga gis nga système mu jëli xaalis yooyu boobu man dafa salté salté nga xam boobu la ñu war a mala lii war nañ cee taxaw ci réew mi de yéen seen mbooti bëri na mairie yëpp laa lay wax mag yi may mairie li ci ne ci ay mbóot ah boo gisee Barthélemy Dias ak ñoom ay de kilifa yu bëri ñoom Doudou Wade maa ngi koy yal mm, na ko mm-hmm. mm-hmm. que ci euh, ñi doon témoin Xalifa Sall yi ñun ci lañ bokkoon mm-hmm. euh, Mamadou Diop yàlla xaar caisse d'avance ga demoon ca témoignage dañoo wàññi ci jour bi Xalifa di taxaw ñun ñett lañ wàññeendoo Euh, euh, gars yi dem euh, ñu dem day day day juge bi ni ko mais ñee wàññi nañ leen d'accord wàññi ngeen Doudou Wade wàññi Habib si mais ab Ablaye Gueye dañoo bëgg moom buñ ko bàyyi ñu ne ñu ay ordu la nee nañ yéen ñett nañ leen wàññi loolu la ñu waxaat gars yi ñoom Moussa Taye ñi may dégg ñu ne ay ordre la ci yéen ñett pour ñu wàññi leen. du ngeen wax man su ma taxawoon ci salle bi wax li xalifa bañ caaf caaf xam. Hmm? la ma téye woon xalifa Sall déggoo Barthélemy Dias. waaw léegi wax nu ko waaw waaw waaw dé merci beaucoup. léegi ñëwal xalifa ah, lu muy bañ. déggoo Barthélemy Dias. waaw neewu leen bu fekkente ne xalifa Sall lii nga xamante ne tey moom lañ ko jëyee tey tëjee ko ko kon nañ tëj maire yi nekk Sénégal yépp parce que même fonctionnement dugub ak ceeb moo fay dox tey xam nga boo tey boo soxla woon nii léegi benn 20 millions laaj ma noo koy amee. Ah. man maa ngi wax ak yow. ñëwal da ngay ñëw marché Castor dem seet ci commerçant yi kenn ne ko mën ko damaa soxla 20 nay jaay kay nay jaay big wala sax xam nga ñe ceeb ak ceeb ak kii la wax. waaw léegi man sumbul ak bësi bu la mm. neex jëlal ci yooyu. waaw mm. bu ko defee léegi yaa xam nga jox nga ma jox nga ma ñaata ñaata laa wax laa soxla. 20 millions 20 millions xam nga jox nga ma 20 millions. waaw moom bési boobu saako yi nekk war a nekk saak 40 millions. 40 euh, 000 francs. Mhm. saak bu nekk moom daf koy def 70 000. Ah. ndax dégg ma. yokk ca 30 maa la wax lii. mairie ba fay. bu ko defee bu bu ko defee mu yëkkati xaalis ba jox la après mairie bu xaalis kii mairie ba fay. dafa yëkkati vingt millions jox maire ba mu dem jox maire ba mu dem commerçant ba bind facture bind facture surfacturé indi indi mairie bi fay ngeen suqi mairie bi ñaari yoon. waaye mooy dox ci mairie yi maa maa wax ak yow. xawala wala eh, malal bu ko dajji. malal eh! ma de. yow kis ma te ma nekk maire mbay li ma jàppale. Ah, ah, ma wax na la ko de yaa ko nee na eh! nekk maire moo gën a neex ministre moo gën a neex assemblée moo gën a na ci comité municipal ma a taxaw ko. walal Barthélémy wax nga ko ba pare. encore une fois léegi émission bi jeex ñëwal ci Khalifa léegi na ñëw ci Khalifa Sall waaw euh, fii ñu jëm nii ci wàllu élection malal demal léegi Khalifa moom mun a bokk ci wote yi lu tax ngeen di mënut a ndax ah, dañu koo tëj. condamné ko casier judiciaire ba yàqu na. yéen yéen yéen dafa am yéen. déet déet droit droit civil am yëpp dañ ko ko xañ fi mu nekk nii dañoo dindi droit civil ya ak ak ak xaw ma pénal du mën a a bokk bindu ci liste électorale yi. te mm. ku mënut a bindu ci liste électorale yi mun mun mun su fal. léegi ñu ngi xaar koy kii amnistie. waaw léegi dama lan la. nguuda mbuub euh, constitutionnaliste la juriste la léegi man fi may commencé yow avant Ngouda Mboup waaw mm-hmm. dañu ni ci ci ci ci ci loi bi la dañ ni mm. ku ñu condamné plus de cinq ans plus de est-ce que Khalifa dañ ko condamné plus de Khalifa ñaata ko tëjoon juróomi at ñaata tëdd matul li li li ñu li war nekk ci kii bi laa la bëgg a wax waaw Khalifa loolu loolu teguwul ci kawam sénégalais yi lu bari nag sew-sew boobu boo gisee Ngouda Mboup ak ñeneen ak ñeneen yeneen di su wax ko mm-hmm. sew-sew boobu la mm-hmm. moo tax Macky Sall boo xoolee même arrêté bi mu génnee bi xalifa di génn dafa ne xalifa daf caa bind boo xoolee tribunal boo demee ci net bi biñ may interview waa Sénégal yëpp taxaw moo tax man leen xalifa xam man wax naa ba ne boo ne amnistie bi nga xamante ne ñun l'essentiel nañ ko ko defal dafa am loo xamante ni ci doo fa nekk di wax yi man sax wax naa ko mhm. nañ ko ko defal yaa may dégg moom ñoom Karim ak yëpp yaa may dégg ma ne xalifa Sall ku ne xam ne bi mu fiy dugg dafa set weex tàll mhm. ni mu duggee set weex tàll bañ leen ba ni du ma génne kaso bi ñu ñëw force ku juge bi jógee ñëw dugg ci biir kaso bi maa ngi taxaw ah bon bi loolu xew na ci xew na ci eh. pour génne prisonnier bi rek waaye dañu koo jëli ci bureau maa ngi xoolal ñu indi ko dugal ko ñu romb gars yi te gis ñu dugal nañu juge bi ci biir yow exécutif laa lay tegal fii ci taabal ji waaw ah. li kay tax mu bañoon a génn moom waaw xanaa xamoo Khalifa Sall prisonnier sax buñ bu ñu sañoon du génn ci kaso bi xam nga tax lekk yeeg naan gi déedéet booboo ci gën a tuuti moom la yeneen journaliste yëpp am tey moo wax leen beneen bu bees fii lay ah. mooy ban xalifa Sall li mu génne ci ay détenus ci kaso bi su ma la ko waxee diggante ba mu fa nekkee léegi képp sa nga taf sa gémmiñ génne xam nan la leen génne mhm. xale yi nga xam dañ leen jàpp ci ay ganaar sàcc yu ñàkk fayda ñii ay réew mi de da ngay gis ko sàcc yamba si makaali ak mi ngoog waaw xoola xal parce que garde yi ñooy wax xam xalifa booy bi daal kii naan def naa fi presque cinq ans quatre ans xalifa jël leen avocat ñoom ñëpp fay ko ñëpp laa wax fu mu jëlee xaalis mbaa du caisse d'avance gi mais dama lay wax leen xalifa naa la wax tey du gën a yéeme ah. caatu ñoom xalifa bu ngeen romboon fii même bi xalifa nekkee ci euh, maire Dakar bu ngeen rombee hmm. bu ñu nee kii mooy caatu ñoom xalifa keps da ngay jooy xalifa hmm. amul kenn ku bokk moom ku dëkk ak moom billaahi wallahi taala bili pay mi ngi may dégg hmm. nga xam ni papa moom la dénk xalifa Sall mi ngi nii di dund doon ànd ak sëñ Moussa si Moussa si wala Moussa si daati responsable suñ responsable moral maa ngi ko nuyu de passage xalifa mësul jël xaalisu mairie di ko dundale waa këram rakkam bu la rombee dama la bu la bu ñu la nee kii rakku xalifa Sall la xalifa waa këram ñëpp ko mere ba ci am nañ ay sërëm yu nekk Italie tey boo leen waxoon wax Khalifa Sall keps xam lu ñu lay wax maa ngi wax yow keps dañ naan la kooku buñ ko tuddal loolu ndax du sàmb àllar tam defal ay doomi jàmm <laughs> bàyyi na lu mu defal ay nga déglu ma xam nga xam lan la ah. alal ji moomuñu ko parce ay milliards nga tim ko ci mairie Dakar Khalifa lii lépp daf ko waaye moom caisse d'avance gi mi ngi ci doon dimbali ay jàmm waaw waaw déglu ma waaw xam nga lan la dafa am loo xamante ni maam Abdou xoola ci séddale rek séddale maam Seydi Hadji Malick mi ko jur mhm. nee na bu ma daan séddale dama daan sédd ñëpp xañ Maodo xam xañ Alaaji Abdu xañ boobu mu ko daan xañ Maodo ni ko bis dana ñëw waaye yow mhm. réew mi amul am na ñoo xam ñi tuddee Alaaji Abdu doom te gisuñu ko nan lañ toll sëñ bi mhm. waaw wax ma ko bari nañu lool ndax lan cofeel ah, kenn du moom parce que da koo liggéey tam waa waajuram ñaanaloon ko ko Xalifa Sall loolu la wax ay njabootam ay sëram man lu ma leen mën a jàppalee ci li may ñàkk di ko am la mais pas li nga xamante ni day jóge ci mairie bi léegi fii nu toll tembe nii ñoo ngi jëm 2024 Sonko samp na ndëndëm candidat la bu dee daanunu ko Idrissa Seck samp na samp na ndëndëm pour nekk candidat présidentiel candidat la présidentielle bu dee daanunu ko ci kanamu yoon si kenn daanu waaw parce que ah, moom non xam nga Sonko moom daa am plainte bu tegu ci kaw loolu vidé gunu ko donc dañuy defoo point d'interrogation mm-hmm. Khalifa Sall nee nañu juridiquement mënut a nekk yow wekki nga loolu teg parce que da su nekkee ne il est condamné plus de mm-hmm. Karim Wade ba fi ñu toll nii Mhm. lii gàllankoor xalifa Sall ci wàllu ay daan moo ko gàllankoor ba du sax ñëw Ndakaar moom bu ne cëpp jas ñu ne ko ràpp ci kaso bi mm. ba xanaa amnistie non dégg naa na mi ngi waaj a ñëw de ñëw ay xanaa mi ngi yónnee nee na mi ngi ay bagage de mi ngi yónnee ay ay oto yooyu bi nekk université mhm. dafa am benn baat yéen kooku nag yéen yéen universitaire dama leen koy bàyyee waaw noonu xëy nango daara jàngul université xam nga dafa wax ni waaw daf moom dafa ni le rabat suspensif waaw mhm. gars yi taxaw ci tribunal ba waa kër Macky Sall. lànk loolu. daal ni le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. waaw coow loolu amoon na fi. Mm-hmm. professeur Guèye toog ci télé bi. Mm-hmm. ni man en tant que professeur professeur de l'université léegi xamatuma lan lay jàngal samay élève man mi leen di jàngal bi ma dalee jàngale ba léegi li may jàngale mooy le rabat d'arrêt est suspensif. Mm-hmm. tey politique tax tey ñu jël dugal ko tey ci ci biir ci biir njàng mi. ba ni le repas d'arrêt n'est pas suspensif kon bu lii passé léegi lan lay jàngal samay élèves man damaa bëgg a xam nag fi ñu toll moment bi ñu toll nii def leen ci investigation. mais loolu loolu seen hmm? faute la yéen bu fekkee ne da ngeen jël lii sarti waaw man boobu jël sa baram je un homme politique éthique moral ak li mooy li Ibrahima Fall Ibrahima Fall <laughs> ancien ministre de l'éducation taxaw tem waaw waaw taxaw tem un homme politique éthique moral. waaw léegi léegi moo tax ma mel nii ma mel. léegi yow waaye du pas un politicien waaw politique politique sain. waaw léegi yow bu ma la ci bu ma la ci këccatee. te ma jaaxal kenn du nangu doon politicien. waaw bu ma la ci këccatee. yow bañ nga ba léegi ni jëmm jii ma gis tey. Ah. du yaa ko waxal sa bopp. waaw yàllaa tax nga wax ko. Mhm. moo tax man la zone suis parce que xam nga moo tax. Mhm. parce que fi ma tënku ci sama kër maam Seydi Hadji Malick Sy. Mhm. fi ma tënku laa wax. dama am ay jomb jomb. moo tax na loo xam ne sañu ma ko léegi ndax xalifa dina nekk candidat lu dina nekk candidat day nekk candidat xaaral ma wax la day nekk candidat ci présidentiel su ma la tegalee programme bi ñu war a def nii ko bu yàgg tey yónnee na oto yi man su ma la waxoon tey suñu programme nga taf sa gémmiñ ak suñuy bagage hmm? la dëkk bi yëpp la ñuy wër fu ngeen jëlee xaalis am na xam nga xam nga fii ma toog di wax ak yow nii waaw am na xaritu xalifa boo xam ne dafa xam ne man damaa jaay sama oto fi ñu sama benn xarit moo jël 4 4 mi ngi nii taxaw moo waaw dama su ma yoroon oto xam nga Citroën Sanca ay pièces am dafa cher Citroën Sanca da koo jaay dama koo jaay léegi looy dawal damay jël oto taxi yeeg yooyu rek fu may ah. dem sonn ba dee nag te ngay di conseil municipal te xalifa xalifa Sall a yor am na ak yi am ci yëpp waaw dëgg dëgg waaw xam nga xam nga xam nga boo gisee ma di la xam nga sànq wax naa la ci biir wax ci ay ah. la ku ñu indil oto indil la xaalis indil la lépp nga ba xalifa nga bañ xam nga boobu wax naa la ko dignité wala 10 ans yi fi Karim nekk xaar ma wax bi gën a neexati sama xarit maa ngi koy nuyu de passage sama ami d'en face Atoumane Fall. Mhm. moo doon directeur aéroport international. dix ans yi fi Ablaye Wade nekk xaritu Karim la xam lu mu wax léegi fi ñu toll moom Macky mi moo nekk directeur aviation civile africain. Mhm. Mhm. bu jas bu jas. bële nag moom moo doon directeur général bi. di sama ami d'enfance. man ak moom ak vieux Sandiéry Diop. waaw ñoo dend nii ay kër. xam nga Atoumane lu mu bi Karim nekkee ministre. dafa ñëw sama kër ni ma Ablaye ma ne ko naa mun ma dama laa bëgg ñu ànd ci Karim mooy yóbbu la ci moom. vraiment nga jàppale ko parce que man xam naa la xam naa say valeur xam naa ni nga mel xam naa ni nga dëggoo wallaay ci télé laay wax mhm. ma ko aatu waaye mënumaa bàyyi xalifa ndax conviction la ànd moom yow loo loo xalifa ah. xam nga mu ànd ak xalifa ak fu nga ànde yéen yi ak oto kër këru Sacré xam nga ku yar ci politique ah Ablaye Wade yow PDS nga bokkoon ci laa yaroo ci politique waaw nekk fi ku ne xam ne mairie commune Dieuppeul-Derklé PDS a gagné xam la mu ma jëlee ci Ablaye Wade Ablaye Faye xam lu ma jëlee ci Ablaye Wade mm. Jean Paul Dias papay Barthélemy yéen a ngi fàttali marche député yu fi amoon Jean Paul demul ca marche ba mm. ñu ni kon dañ koy aj 6 mois étudiants yi di bañ di jooy ñun ñëpp ñu leen Jean parce que boobu Jean Paul Dias ak Boubacar Sall ñoom ñooy gayndey PDS mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ñun ni leen tey du fi nekk dem di dem nañ ba point kër Ablaye Wade di ko saraxu di ko ñaan pour ñu bañ a aj Jean Paul Dias tey Macky Sall mi boobu moo doon président des cadres PDS la ñoo cadres yi nekkoon ñaata 24 mm. personnes ñuy réunion kër yaa Cumbe Thiam ma bokk ca bokk ñu ca gën a nekk xale. kon nga yow PDS ak xam nga. waaw waaw dégg man la Abdoulaye Wade ci politique boo ma gisee. ni may defee nii ni may defee nii. waaw nga xam ne Abdoulaye Wade li mu def ci man nag dara du ko dindee. xoolal gis nga bi loolu amee. waaw ñuy dem di dem di dem ba xoolal ba ñu bañ ni foog ñu aj Jean Paul bi ñu ko ajee. Mhm. Jean Paul ñu créé ñu ñu ànd créé bloc centriste gaynde. Mhm. meeting bi gën a mag man maa ko organiser sama kër mu commencé am valeur kon da bedd ko ak ñoom Jean Paul Dias dem. créer bloc cent waaw BCG. liñ ko teg moo tax. bu dul woon ak kon ba tey maa ngi PDS. biñ ko taam moo tax dàqee ci parti baaxul. Mhm. bu ñu defee loolu nag ñu créer BCG bi ñu créer BCG tamit ñuy ànd. di liggéey di ànd di liggéey gis nga tey waa Piraat da jëppal yi ngay dégg ñoom Kouthia seen Kouthia mii. yoo xam tey mu leen ko tegaloon muy gën daanu maa ko denc mhm. ci ñi ko njëkk ci jamono boobu Kouthia daawul jóg ci man kon foofu kon si Jean Paul Diaz nga jaare bu ànd ak Khalifa Sall déedéet Jean Paul Diaz moom bi ñu àndee di dem di dem di dem man conducteur des travaux la man nekk ci benn entreprise ma dem Mali chantier yaa ngi fàttaliku Jean Paul ba muy déclaré pour ànd ak Abdou Diouf pour jàppale ko ci mm-hmm. deuxième tour ba waaw mm-hmm. ah waaw waaw mm-hmm. merci CO bi laay la tubaarkalla tubaarkalla macha allah ma daal di ànd ak Jean Paul ah. uh-huh. ba ba ba ñu ba ba mbir moom émission bi jeex na nañ daanele foofu daanele foofu. waaw xam nga yaa may dégg Jean Paul moom. Ah. soo gisee ñu ànd bi ñu dem Jean Paul ma nekk Mali dégg ni Jean Paul Dias ànd na ma ngay jàppale Abdou Diouf. Mhm. man ma daal di ñëw bi ma ñëwee Pape Birame Niang yàlla na ko yàlla yërëm te ñu moo doon mhm. président troisième fédération euh, euh, euh, coordination fii Kassor. Mhm. keroog ci dëj ba sax tamit ñu ngi ciy gërëm président Macky Sall parce que woote na en direct Jean Paul Dias Sock mu jaale ministre Aly Ngouille Ndiaye ñëpp toog ah. général ñaa tubaab fakal la parce que nijaayam la mere de mais buñ ma mere te yàlla merewu ma yi may déglu tamit merewu yow mi nga xam ne dëgg laa wax <laughs> parce que xasuma maire waxuma mairie damaa wax xalifa moom mairie yi am ci mairie yëpp man li may wax nëbbu ma ko ah, la. yéen loolu. dañ xam nga li ma ci Jean Paul Dias bi ma laaj. non loolu dañ koy dagg dañ koy dañ parce que jeex léegi xalifa laa bëgg nga wax ndax da ngeen doon candidat présidentiel samp seen dënd dem mbaa da ngay ne bootu ci Sonko. léegi xaaral wax la benn wax fii. waaw pour bu dee restitué yooyu. waaw droit Sonko Sonko moom bu fekkente ni sénégalais yi dama la ciy wax ñaar mu leer nañu li may njëkk a dénkaane mooy mboolem ku bokk ci parti Sonko. Mhm. bu leen transhumé bu leen daw bu leen dem fenn bu leen yuux bu leen sëqat ak lu ñu mën a teg seen candidat bàyyi saaga ah bàyyi bu fekkee ñi ngi koy def te nga te nga dégg ko ah, yow nañ ko bàyyi man dégguma ko man laa wax xam nga nit tey mu dégg waaw bu fekkente ni dama la ñoom laa wax nañu ànd gën a doon benn bloc lu ñu mën a teg Sonko nañu taxaw fi ñu taxaw gëm li ñu gëm parce que am nañ candidat bu ay valeur Khalifa saal nag li may wax ci moom sénégalais yëpp nag ma dégg képp kuy campagne leen ta nekk candidat du dem bu leen ci sonn xalifa candidat la teg na ay bagages am bagages yëpp ngi taxaw matériel yaa ngi taxaw dañu war a def tournée ci Sénégal yëpp wër fépp parce que candidat la 2024 incha allah kooku man maa leen ko wax loolu mooy jeexal kon mu yaakaar ne yàlla nañ ko fekke te tal ko élection 2024 dina xumb lool te dagan Karim a ngi waaj Sonko dina bokk xalifa euh, dina bokk takki jaajam waaw takki jaajam Macky foog mu am mu am mbërëm bokk ah Euh, benn mbër buy bëri rek day xaw a doy waar. waaw loolu il faut nga am adversaire wallaay foog nga am adversaire. ma bàyyi la malal <laughs> egg na ci fee bi Lamine Sarr bu asalem du xam ngeen ko. Ah, waaw waaw tubarkalla ñoo àndoon màkk di sama xarit di yëpp moom tamit génn àdduna. tubarkalla moo defar sama yaay mu génnee àdduna asalem waaw kër papam ñoo dend. yàlla na kenn ci man yàlla na ko yàlla def ci àjjeen wi fi daw si moom ak ñoom Baye Waly Sarr ndey ay subi sama neex neex alxuraan lool neex baat jumaay asalem imam Lamine Sarr comme yow gis nga xam waaw waaw bu baax moo ma yar ñu ngi koy ñu ngi wax yàlla na suuf ko oyof ci kawam Thione Seck ñu leen koy mm-hmm. jaale ñooñu ñëpp daal yal na yàlla xare leen àjjana firdaws sa gay sama sœur yal na yàlla at leen cëmb ba leen atte ci jëf leen jéggal ñu nag loo xamante ni dégg nañ ko fi ci kaddu mm-hmm. te kaddu ya nekk loo xamante ni Euh, kaddu la yoo xamante ne du question lu ñagas la mhm. waaye doomu aadama booy wax dëgg maam Abdou Aziz ci loolu ñun la ñu jàngal mhm. dafa na nga jël yàlla nga teg sa diggante ak jëmm yi ngay waxal mhm. bu ko defee doo gis jëmm nit ki yàlla kese ngay gis ndaxte dëgg yàlla moo ko moom moo tax wax ji yëpp dañ ko wax te yàlla tax ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp yal yàlla may gudd fan may ñu wér te bu ñu sañoon nag Macky Sall élection yi système bi système bi mu bëgg xam nañ ko mooy pousse 2024 mu génn ca bu ko defee mu dugg ci beneen beneen mandat Macky Sall loolu bul ci bul ci dem bu la ci kenn dugal affaire troisième mandat léegi féete na boor bàyyi ko te dimbali ñu nga organiser élection yi balaa ñuy yegg jërëjëf bu baax waxtaan bi am na solo ah di la di kontaan ci ñëw bi nga xam ne ñëwoon nga ko fi ah, donc Malal ah, ah. ma bàyyi la nga tàggatoo rek ñu daal di tëj waxtaan wi gërëm gërëm suñu Ablaye waaw ak ak suñu sponsor yi tubarkalla Touba Gaz Touba Gaz Touba Gaz ak CO e e am nañu mana waaw seen jotaay ak seen taxawaay am na solo di gërëm sunu caméraman yi di gërëm mbootaay mi yëpp waaw mbootaay mi delloo delloo yi prochainement mais yéen xam nga mi naa leen wax leen de kañ ah. question publicité bi ngeen def de ah. Ah. sama kër maa ngi nii nanguma sax a jënd gaz xamul tax parce que Touba gaz billaahi wallahi taala ñoom laay xaar ñu romb benn ay sénégalais lañu ñaar moo gën a fees yeneen ya te barfakal ma nga ne ma bàyyi su mooy gën a yàgg moom mooy gën a yàgg kef sax xam nga li ma wax dëgg la man xam naa ci dara man dama ne sama soxna bul jënd ci benn mburu Touba gaz jeex na te CO e ji moom gis nañ ni nga ko def tubaarkàl <laughs> la <laughs> merci beaucoup Malal euh, mu am nag message boo xam ne bëgg naa ko lancé euh, muy acteur économique yi nga xam ne ñooy def euh, lancement wu seen mouvement politique ñoom nag mouvement politique la mi ngi am le 4 ah avril waaw muy les bijoutiers du Sénégal mais acteur économique yi la mhm. Euh, mi ngi amee résidence Mamoun. waaw dimanche lay doon le 4 avril. yokkal la tam képp ni euh, xam nga góor mhm. na ñaar fukki at weeru koor bu ne daf mhm. ya waaw dimanche bu njëkk bi marmiyal mhm. dimanche ba sa topp ceem ak caaka njaay. macha allah gannaaw nag nun la bàyyi ci ginnaawam ren. danoo am pasteefu taxawaat ci loolu. def ko ni mu ko doon defee di si woo waa Ndar yëpp. ak waa Sénégal nu ñëw. ñu balee cimetière ya peinture ko sëkk ca suuf wàccee fa ay kaamil ak xam yu bëri ñaanal néew ndax loolu bokk na ci li mu ñu bàyyil te dénkunu ko laataa mu doon dëdd àdduna kon waa na yëpp nañu jàpp loolu kaamil bi dina am ren dimanche bu njëkk ba ak ba ca topp ca marmeel ak ceeb naka góor gu doon amalee jërë ngeen jëf macha allah jërëjëf euh, Malal mu nekk lu am solo mm-hmm. yàlla na suuf oyof ci kawam mboolem suñu waajur yi fi wàññeekoo rek yàlla na suuf oyof ci seen kaw mm-hmm. yaa ngi wax léegi imam Lamine saar bu mm-hmm. HLM ñi ngi ñaan suuf oyof ci kawam waaye tam euh, ci HLM le sama cousine bi génn àdduna moom itam mu di Khoudia Ndiaye ah, doomu Mor Lisa ak Roqaye Sall moom itam yàlla na suuf oyof ci kawam ah, di kontaan bu baax nag ci àndandoo bi ñu àndoon nag yéen ci seen mm-hmm. émission ngoonal nii lay demee àllarba bu jot ci télévision Futur Média jërë ngeen jëf di remercier bu baax ma madame Diop ah couturière bi nii la def. Ah, ci ci mbubu chantum ah. macha allah waaw mi ngi nii maa ngi koy remercier bu baax madame Diop. tabarfakal ah, ci grand mun njaay mun njaay couture ñoo jàkkaarloo. kii laay wër mun njaay couture kii laa wër. jërë ngeen jëf merci beaucoup à tous salaamaaleykum ñoom Cissé ñoom Moussa ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi ñu ngi leen di jaajëfal ba mercredi bi di ñëw incha allah. jërëjëf.